doomu la <laughs> ay 5 heures lañ hmm. ko fekk fii ci buntu kër gi moom moo toogoon ci buntu kër gi léegi sunu benn dëkkandoo benn paa bu toogoon ci buntu kër gi a na xale bi jógal sunu beneen jigéen bi tolloog xale bi ñëw na ko pend duggal si biir kër gi wala boole sa yaay nee xale bi jógul moom tam mu continué dem man ma jóge fii si biir saal bi ma ne damay dem caaroñ euh, tàkku saan bi jot ma ne nangal ma julli doog a dem hmm. fi ma jullee nag ba génn ci sama rakk bu jigéen ki jur xale bi di daw bi muy daw nag ma ne waa lan la lan la yaay di daw paa bi ne ma benn xale bu góor moom moo jiit jiital xale bi moo jiital xale bi ko yóbbu may daw beneen xale bu góor bi taxaw sunu dëkkandoo bi mu ne ma xale bu góor bi de pourtant nee ko foo jëm ak kii penda na ma dama koy gunge ma ne penda wérul mu ne na xale waa ji da ko làkk la seen mbokk la ca kër bi koñ bi la jàdd koñ yëpp ma ne nagal ma wàññeeku xool ndax sama rakk ji gis na ko ñëw fekk sama rakk ji continué na ñu ne ma lan la ma ne penda lan yóbbu léegi déjà euh, ki ñu yóbbu penda nan la penda si penda si penda si ñaata la la war a am. war na am 16 ans. 16 ans waaw kon moom jànq la. kay mais dafa xaw a wér lii. daa xaw xel mi moo tax téyewu ko mais nee xale bi foo jëm mu ko kii laay gunge. moo ko loolu moo ne ko kii laay gunge paa nag nee yàgg naa toog moom ci pee bi paa moom ne na na ko xel mu toog moom pee bi mu jógee nag di dem moom ci la paa duggee di woo sama rakk bi mu koy woo ñu génn nag fekk nii mu dem ngeen dégg police dem nañ bu ginnaaw bi ak bu caaruñ bi benn bàjjanam nee na dem na si gendarmerie bi tamit déclaré na ko mhm. waaw jamono ji euh, fi ne daal dégguñu ci moom dara déjà naka ngeen dundee 24 heures. yëpp ah, kenn nelawul du ñun du suñuy dëkkandoo. kenn nelawul ay mbokkam ñëpp a ñëw ay bàjjanam papaam ñëpp a ñëw bi koñ bi kenn nelawul amul ku nelaw. kenn soo ba léegi nag soo ba léegi am na tax ñu wëri. donc affaire bi nekkul xale bi moom moo doxee réer. déedéet da koo fekk mu toog da koo fekk mu toog mu toog ci wetam lii la paa bi wax nee na moo ñëw toog ci wetu xale bi bàyyi xale bi xel xale moom paa bi mu ne ko pend jógal ci biir kër gi nee xale bi wuyu ko parce xamul lu muy wax ak moom benn xale génn romb ko da ko pend duggal ci biir kër gi wala wala sa yaay nee xale bi toog diggante bi ko yóbbu ci la paa bi jógee nag di tekki wax ko yaayam taxaw ci ëtt bi naan am na benn waaye de bu toogee sa doom ci pied bi fii yaayu di génn Moussa fi yoon na ko jàdd nañu man damaa génn gis sama rakk bi di daw ma lan la paa mujjee ma benn waaye ko jiital man tama topp ci wàññeeku tax ci kër gi dama cee euh, na ko ah, parce que li tax mu ñëw toog ci wetam mun koo yóbbu xam ne na ànd ak sago te te xale bu jigéen la te xale bu jigéen am na 16 ans waaw parce que góor a ko yóbbu dem ba tey daal kenn nelawul suñu koñ kenn nelawul ay mbokkam ñëpp presque fi kenn nelawul xale yi tax fi ne demaat nañu léegi xale si pend si am na 16 ans boo ko gisee noonu la mel dafa xees dafa xees rafet am yaram waaw doo boo ko gisee tamit doo defe ne dafa am dafa feebar mhm. doo ko xam boo ko gisee ni mu toog danga naan dara dalu ko mais moom ay àndandoo la daal yu ko topp mhm. waaw loolu yàgg na ci moom yàgg na ci moom depuis moom presque judduwaale wu ko mais da koo dab da koo dab waaw da koo dab mhm. waaw da koo dab mais musul dem musul dem musul fanaan àll benn yoon daal la fi dem fanaan àll dan doon dem tuuru famille ñoom papaam xam nga xale boo ko diggee da ngay dem tuuru famille yaayam dik ko ne ko suba dañuy dem tuuru famille mu dégg tuuru famille bi ko dem bu yaayam demee moom te mu jóg ut cent franc paas ne day dem Kër Masaar demee Kër Masaar nag mu gëlëm mu réer am ko téye jour fanaan àll da benn problème benn mère ko yore papa moo dem fekk ko fa indi ko mais moom bii moom dañ ko yóbbu déjà en tant que ay waaw kenn démb kenn nelawul kenn nelawul kenn lekkul kenn naanul parce que xamoo lan la ko def xamoo fan la ko yóbbu te fu dem ñu ne da koo teg benn place waaw kër yàqu yëpp dugg nañ fi xale góor yi dem dañ doon tëb dugg ci kër yàqu yi dañ doon tëb waaw di dugg ci kër yàqu yi danoo dugg ci kër yàq yàq yi di seet jaax lan trop léegi moom ana yaayam yaayam mu ngi nii papaam yi nii kii magu papaam la kii bàjjanam la alors soxna si noo def maa ngi fi maa ngi jàmm ah. waaw affaire moom nu mu nu mu demee noonu man dem fii laa toog ne am benn paa bu ma woo fii ci koñ bi ba ma génnee noonu gisuma dara léegi su ma taxawee noonu ci la ma am ku ma ne fenn continué na ci bikitu bayla bi foofu lañ jàddee ma taw be noonu gisuma dara. noonu noonu noonu. waaw affaire bu gaaw noonu boobu. te Penda e, àndut ak xelam. waaw waaw xel mi neexul noonu. xel mi neexul mm. dèjà yow nan ka nga dundee loolu depuis dem ba léegi gisoo sa doom xamoo ci ni mu nekk. ah métti na moom ndax démb ba léegi ñuy wër ñuy wër moom mm. loolu métti na xam neexul.

kan la. moom sama doomi rakk la sama rakk bu góor mooy papaam. mooy papaam waaw maa ko ñoo bokk ndey ak baay. affaire bi doy na waar waaw métti na métti na waaye nag euh, nit ki da ngay gëm yàlla. waaw. parce que nag bu euh, fekkee da nga taw tawhid lu ñëw rek da koy delloo yàlla. jullit tamit benn arme la am. mooy ñaan. jullit saa yu ko ndogal dalee. arme bi mu am na ko utiliser mooy ñaan. ñenn ñi dañu dem ci maam mën yi. man am momit ci yalla ci yalla lay dem rek kon yi nga xamne ne yow yaa jur bu la kenn jëk ci yalla ñaanal delo ko yalla directement nga wara gëm ne tamit c'est pas parce que delo nga ko yalla directement rek da nga am résultat bu baax dedet da ngay nangu ndogal ndogal bu nar a am da nga koy nangu yalla na fekk na muy dogal bu neex hmm. mais leneen lu amit da nga koy nangu hmm. waaw da ngay dal alors ah, xale bu jigen bi euh nañu aussi euh yalla dafa def xawta ànd ak sagom waaw mom dafa am bu nekk xale ba léegi li ñu am crise d'épilepsie da koy faral di daanel hmm. handicap la ci mom la daal Mm-hmm. waaw souvent day daanu waaw souvent da koy daaneel souvent da koy daaneel waaw loolu daal mooy problème moom mais sinon day waxtaan day fo day ree di amul benn problème day tax ko xamul soo ko da nga naan ki amul benn problème mais ni mu demee day day day daal tiitalaate en fait. waaw tiit waaw waaw tiitalaate na parce que. man démb Kër Masar laa dëkk. dañ ma woo boori timis informé ma. il paraît mooy deuxième tentative bi nga xam ne waaye te réussir na ko. lii waaw deuxième tentative. amoon na tentative boo xam ne. bi mu koy yóbbu. ñu ne ko eh, foo jëm da nga xam ki benn na déedéet kooku bàyyi ko daal di daal di dem donc si ni ma ko comprendre bi mooy deuxième tentative mu réussir donc euh, li ci li ci doy waar mooy comme niñ koy waxee jigéen la. et la saison. voilà jamono ji dafa dafa doy waar. waaw donc dafa am yoo xam ne peut-être man en tant que à mon âge. Hmm. ak information yoo xam ne yàgg naa ko am. Hmm. yàgg naa lire presse bi les faits divers et autres les faits de société. Hmm. am na foo xam peut-être du ma ko mën a wax devant les dames. mais inquiétude boo ci xalaat rek am naa ko ci waaw sama xel sax dina dem ba ci les sacrifices tout est possible actuellement ci jamono boobu lañ nekk. Sénégal actuellement devant pour le pouvoir pour les richesses jaral na leen bu ne parfois lu ci bëri comme comme comme vous dites. dans dañ koy dañ leen wax koo xam ne. xelam matul voilà justement tout tout est possible. wallahu alam yàlla rek moo xam nag. inquiétude la bu ne ci ñun rek ñun ñëpp. am na ñoo xam ne seen inquiétude dañ ko intérioriser mën nañ ko teenti doo ko xam ci ñoom. alors ils sont peut-être plus inquiets que les autres. am ñoo xam ne dañ koy wane mënuñ ko dañ koy manifester. Mhm. nit ñi yemuñ daal. Mhm. waaw mhm. mais inquiétude boo ko xalaatee ñun mu ngi ci ñun fi mu nekk nii. waaw léegi nga rappelé turam santam. waaw dafa xees comme ñun ñi rek xeereer daal lañ koy mën a wax. waaw kay jërëjëf Faye